ñu ngi ànd ak ci kitaabu tawxid ñu ngi tollu buntu maa jaa anna sababa kufri bani aadam wa tarkihim diinahum wa huwa alxulu fi salihin ñoo ngi toll ci buntu boroom xam-xam yi di ñu leeralal lii sabab ñu bari ci doomu aadama yi ñu bàyyi seen diine ñu bari ci doomu aadama yi ñu weddi yàlla sabab bi mooy al xuluwu fi saalihin mooy ëppal ci mbiru nit ñu baax tey mooy ñaareelu das hadisu ibnu abbas radiyallahu anhuma fi qawlihi fi qawli llahi taala wa qaalu laa tazarunna aalihatakum wa laa tazarunna waddan wala suwaacan wala yaquuta wa yaquuqa wa nasra aay bi nekk ci suratu nuur ay 23 borom bi subhaanahu wa taala nettali lenn ay nit ñu nga xam ne bokkaale nañ yàlla te am sabab bi fu mu jógee ibnu abbas moo ñuy nettali xadiis bi kan mooy abdullah ibnu abbas ba mu ñuy tafsiral aaya bi ñu war a xam kon ibnu abbas suñu waxee ne aaya bi loolu lay tekki bu nu doxul dëgg-dëgg ñu xam ne loolu la Abdullah ibnu Abbas turam ak askanam moom mooy Abdullah ibnu Abbas Abdullah ibnu Abbas Abbas ak Abdullah lañ bokk bàyyi yonent bi Abbas ibnu Abdul Abdullah ibnu Abdul kon Abdallah ibnu Abbas ak yonent bi luñ bokk ay doomu baay la ibnu amir rasul doomu baay taxu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci saxaaba yi gën a ndaw ci saxaaba yi kon xale la waaye daalahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi mooy ki ko ñaanal jël loxoom teg ci dënn bi ne yàlla kii yàlla nga ko xamal diine allahuma faqihhu fi diin yàlla yàlla nga ko comprendre loo diine al mooy comprendre al fahm wa yuallimuhu taawil yow yàlla yàlla nga ko xamal nu ñuy tafsire al quran nan lañ koy firee kon kii bu ñu nee aaye sàngam loolu lay firi kon loolu looy bind tarjama bi nee na fastajaaba allahu daawatahu yàlla daal nangu ñaanu abdallah ñaanu yonente bi alayhi salaatu fa kaana xibru haasihi l umma mu mujj kan fóori xeet kan fóori xeet yi mooy abdallah ibnu abbas mu mujj nekk géeju xeet wi daanaka tafsir quran genn wàllu ay ba nga dégg ñu ne la Abdullah ibnu Abbas nee nekkul rek yem ci mu nekk géeju xeet wi waaye mu nekk faqiihu xeet bi ak imaamu xeet bi dinaa ba mu nekkee tafsirukat quran faqih la woon boo xam ne dañ koy déglu ci xeet bi Omar ibnul Xattaab radiyallahu anhu wa ardaa danaan def saa yu mag yi saxaaba yi toogee mu ne Abdullah ibnu Abbas kay toog mu ñëw toog toog xale buy toog ci biiri mag am ñoo xam ne gisuwuñ ko xale bi lu mu fi def kii fii du place na dem ci xale ya fowi am ñuy gisee noonu ci saxaaba yi ba benn bis Omar xaw ko yëg ci ñoom ni xale bi li mu fi toog am na ñu mu sene Omar daal di koy woo mu ñëw toog ci biir man mi Omar ne damaa tafsiral izaa jaa nasrullaahi wal fath lenn ci magu saxaaba yi ñu tafsir ko firi baat par baat izaa su fekkente jaa a dikk na nasrullaahi ndimbalal yàlla wal fath ba nga ubbi màkka war ay tannaasa di gis nit ñi yadxuluuna ñuy dugg fii diinillaahi ci diina yàlla afwaajan mbooloo mbooloo ñoom ñëpp genn wàll gi Omar laa yëpp daal di koy leerale noonu ba mbooloo mi jeex Omar ne Abdullah ibn Abbas saar bi lu muy firi mu ne lu njëkk mooy saar bi dafa wàcc di tàggee loolu li njëkk balaa ñu koy firi ñu wax sababu nuzul saar bi mooy saar bi wàcce na di tàggee yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko xamal ne yonent nga woon bu yàlla yónni kuy dox mission mission bi jeexee nu muy def mu wax leen ci saar bi lu kenn bàyyiwul woon xel ba ñépp xam ne xale bi ndeke kon du hasard Omar di ko toogloo fi Omar ne leen dégg ngeen ñu ne amu ne lii moo tax ma ko fi bàyyi Abdullah ibn Abbas ne yemul woon rek ci nekk géeju xeet bi waaye fóori la woon ci xeet bi waaye imaam la woon ci xeet bi moo daan jiite lu bari wa rawaa kasiran min al ahadis xadis yonent bi aleyhi salaatu salaam ñu ko ci ëppale bariwuñ de booy lim saxaaba yi ko ëppale lim mokkal ci xadis bariwul soo nee abu hurayra ibnu amr abdullah ibnu amr ibnu abbas mooy troisième personne ndax Abu Hurayra mokkal na 5374 xadis hmm? Abu Hurayra 5374 xadis la mokkal Ibnu Abbas mokkal na 1660 xadis 1660 xadis la Ibnu Abbas mokkal yaay ay sa mokkal 2210 gis ngeen ci jigéen mu ne moom xale bi di Abdullah ibnu Abbas bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di gaañu treize ans la am kon xoolal lii mu xam lépp bi yonent bi gaañu mu koy bàyyi mu ngi am treize ans tey ñun booy xool suñu treize ans suñu xale yi am treize ans tey boo leen di xool lan la ñuy nekk suñu xale yi am treize ans ci Ndakaar si ngeen xoola xale bu ndaw bi yooyu ndi bi muy génn àdduna lii la ko bàyyee mu nekk boroom xam-xam bu mag dund na ba gaañu ca gàddaay yonent bi alayhi salaam bi ma amee juróom benn fukki ak ñett ci dëkk buñ daan naan la gaañu Ablaye ibnu Abbas moomu moo ñuy nettali aaya bi tafsiiram pour ñu dégg dégg dëgg dëgg dëgg ndekke li alak nit ñi mooy ëppal ci nit ñu baax ñi Ablaye ibnu Abbas nee na ñëw na ci saxiix ci Buxaari yi aaya bi nekk suratu nu aaya 23 mu ne borom bi subhanahu mu ngi wax wa qaalu laa tazarunna alihatakum yonent yàlla nuur bi ko yàlla yónnee mu ñëw di woote mu woote junni at yu manqué juróom fukki at mu dajeeg ñoo xam ne dañoo wow koŋ koŋ koŋ lànk ne duñu wuyu yàlla fan la mujjeeg ñoom moom nuur mooy ñu koy dénkaane borom kër buy dee dangay woo sa doom yi ba ñu ñëw nga leen gis ngeen góor gu màgget gi ñu ne ah yàlla da koo gént moo tax du dee samay maam fii lañ ko fekkoon dee bàyyi ko fi samay bàyyi fii lañ ko fekkoon dee bàyyi ko fi gis nga man maa ngi ni maa ci des maa ngi ni damaa nar dee bàyyi ko fi ngalawaay bu leen ko gëm bu leen ko déglu seen yàlla yi ngeen jàpp jàpp leen ci laa tasarunna alihatakum bu leen bàyyi yàlla yi yàlla yooyu nag luy cosaanam mu ne gaa yi di ko dénkante wa qaalu ñu ne ñoom peuple ba a nuubi ya laa tazarunna bu leen bàyyi alihatakum seen yàlla yi seen xërëm yi bu leen leen bàyyi wala tazarunna bu leen bàyyi yàlla ju tudd waddan wala tuwaan bu leen bàyyi suwaa wala yaxuuf wa yaxuuf wa nasaan yii du ñu woon ay xërëm de ay nit yu baax lañu woon ay boroom xam-xam lañu woon ñu amoon ay barab yu ñu daan toog di jàngale waaye ñu dee ba ñu deewee iblis daal di ñëw daal di taaral ca nit ña bàyyi ña ñu bàyyi ginnaaw ne leen comme ñi ay mag lañu woon te ay kilifa lañu woon ay borom xam-xam lañu woon ay waliyu lañu woon ay muqaddam lañu woon ay cheikh lañu woon ay ay ay ay ay léegi dee nañ léegi da di def seeni jëmm estati ngeen teg leen fi ñu daan toog su ko defee bu ngeen xoolee jëmm yi mu fàttali leen mag ñi fi nekkoon ñu daal di jël seeni i plâtre ak seeni i banc daal di koy def ay institut ku nekk ca place ba nga nekkoon ca dëkk ba nga nekkoon ca famille ba nga nekkoon place ba nga fa daan jàngale ñu daal la fay teg defar la ba tabax ko ba mu nduróog defar ba mu rafet nit ñi di ko gis loolu la yàlla dañu nettali mu ne lii ngeen dégg ñu ko ci ay tur mu ne haasihi asmaun ay tur la asmaau rijaalin ay turu nit saalihiina yu baaxoon doon jaamu yàlla ay nit yu baax ñu fi nekkoon démb ci dëkk bi daan jaamu yàlla ñooñu ñu ngi bokkoon ci min qawmi nuux ci nitu nuux lañ bokkoon waaye ñoo fi jiitu woon moom ñoom dañoo dee ba def loolu ñuy def nuux doog a ñëw seen ginnaaw fa lammaa halaku ñooñu baax ñooñu ba ñu deewee aw xas seytaanu seytaane daal di ñëw dee wax ila qawmihim ci seeni nit ne leen an ansibu ila majalisihim allati kaanu yajlisuuna fiha ansaaban na ngeen samp ci barab yi gaa yi doon toog seeni jëmm na ngeen dem ci lawbe yi ñu yettal leen wala ngeen dem ci ñi yett ñu yettal leen wala ñu tabaxal leen jëmm ju nekk fa mu daan toog gaa yi daal dem def loolu wa sammuha bi asmaihim ku nekk bi ñu defaree sa bos ba pare ñu daal lay tuddee turu turu waa ji fi toogoon di jàngale ñaata lañ woon yow amoon na wat amoon na suwa amoon na yaaxuut amoon na amoon na yaaxuub amoon na nas yii nag ma wax famille bu nekk ku nekk ca famille ba nga bokk xeet ba nga bokk dañoo defar jëmm jooju teg ko sa place ba nga nekkoon bu doon imaam lañ la teg léegi nag fa faalu ba wax yow loolu ñu daal dem gas waaye jamono yooyu wala mu toog ba kenn jaamu ko woon dañ ko bàyyi woon foofu xam ne góor gi jëmmam a ngi nii terminé nga seytaane lu muy def chaque jour li ñuy li tere nit ñi sos ci diini jamono ji ñu defee loolu ñoom ñi def loolu jaamuwuñ ko lu tax jaamuwuñ ah xam nañ ne lii kenn du ko jaamu waaye dañoo def loolu ngir fàttaliku nit ñu baax ngi ngir bu seen xel demee ci ñooñu ñu góorgóorlu jaamu yàlla jamono yooyu kenn jaamuwul ñooñu nit ñi ma lim sàmp kenn jaamuwul leen waaye xam nga lan mooy problème bi hatta isa halaku ulaay génération boobu defoon loolu tabaxoon affaire yooyu génération boobu daal dee daal fiy jóge wa nasiya ilm xam-xam daal di réer fa ubidu ñu jaamu beneen génération bi dundaat xale yi màgg yeneen liir judduwaat màgg ñu commencé di leen raay di diw ci kanam est-ce que waaye ma ci léeg kenn ñëw julli ba pare fóonu léeg kenn ñëw moo kenn ñëw visa la passeport léeg kenn ñëw jàpp ci ñoom jooy leneen léeg kenn ñëw raay raam ñu commencé di bokkaale ndeysaan xoolal lii tey am na foo koy wax da nga naan yow ñun ngay wax yow ñun ngay wax xam nga yow ñun ngay wax saa yàlla moo ko mi ngi ni alxuraan wala loolu moo tax ñuy tere sos ci diini yàlla ni ko tere gis nga photo bi ngay ni ci kër gi def ko fi wala wala wala yow mi ko fi indi mën ngaa bañ a bokkaale waaye boo deewee rek ñi ngay bàyyi ginnaaw mën nañu ko def xel commencé di la jaamu gis nga tey nit day dee jàkk ji mu doon jiitu ñu suul ko fa nit ñi di commencé di raay tey benn benn mbokk bu ma doon waxtaanee mu ne mu ne dafa mos a déglu information bu doy waar nee na benn dëkk boo xam ne sëriñ bi ci digg jàkk ji lañ ko suul. léegi nit ñi dañuy ñëw di di di ko ziar dañuy jël seen kurus yi di ko bomb ci grillage bi ma fii lañ ko dugal ci biti bi fii grillage bi léegi bu ñu jëlee kurus bi di ko raay ci grillage bi garde foofu mu ne leen eh bu bi day sonal sëriñ bi dégg leen li ma wax yi bu leen ko raay ci grillage bi ndax kon day sonal sëriñ bi fi tëdd ndax day def crasse crasse bu leen ko raay nga gis gars yi di teggi ko naan nii rek loolu bokkaale la bokkaale la kenn du dem di ziare ji ku dee di raay kenn du dem di ziare ji di ku dee di toroxlu loolu bokkaale la te loolu tey moo ñuy di problème di di tibb ci suuf armeel yi ñii di diw seen sijaaba ñii di ci fomp seen mbax na ñii di ci lu nekk ñi di ci diw seen kurus ñi di ci sànni xaalis lu bokkaale la te iblis moo koy def moo koy taaralal nit ñi mooy wax nit ñi kii ku baax la kii amul lu mënul gis ngeen kii day faj ay aaju nga gis gars yi di commencé di bokkaale su ko defee nag yenn saa yi nga wax may ma ci nangam rek nga génn rek affaire bi rek yow nga ni kooku dem wax ko keneen da sa problème non man taay dama bëgg naaw mu dëma quoi demal nun nga jiw boo demee mu réglé kooku day dem rek église yàlla def mu mu réglé rek kooku tamit su ko defee dëkk ba ragal affaire ba mu ngi nekk xërëm boo xam ne kenn dootul xalaat yàlla loolu moo tax nu yàlla dañu nettali ci histoire nu nu li mu dajeeloon loolu moo tax ngeen gis mu woote junni at yu manqué juróom parce que la xol yi dee lii lañ gëm mooy estati yi xërëm yi ba pare xeet bu ci nekk am nga benn boo teg sa sa koñ bopp koñ bi yenn saa yi nga dem ci benn dëkk ñu nekk guy gii guy tukki dafay tàgg ku dem tàggoo saa ko baax nga gis xale yu góor yi ñëw day dem wër juróom-ñaari yoon doo ko dem jigéen guy sëy foog mu wër guy gi foog mu toog ci xeer yi foog mu foog mu foog mu foog mu te loolu mu bëree Sénégal yàlla moom nag Sénégal tawxiid dafay néew te ba pare sax waxtaane ko tamit problème la ndax la nit ñi histoire la daw parce que saa yoo waxee nga gis ay nit xonqal ba commencé di fëgg dënn histoire commencé ñu ne yow la yaa ndax yow xam nga ne lii ngay wax yow ah diw ngay wax même boo tuddul turu kenn sax ñu ne diw ngay wax déedéet waxuma turu kenn ñu kenn yàlla yàllaa wax te yàllaa xam moo tax yàlla su waxee rek mu laal la alaa yaalamu man xalaq huwa latiful xabiir yàlla moo bind jaam yi moo xam jaam yi li ñuy def moo tax su waxee rek nga ni man la wax bu ñu ne yàlla nee rek nga gis ay nit ne kii ñun lay wax tey saaru nuux bii lii nuux dageel ci fii ñu toll tey ci Sénégal li ëpp ci ñun kan ci tegul bët ci tegul bët ci bokkaale yi lii moom ku ko fi bàyyi ah da sonn rek waaw bañ bañ nangu lii moo fi sës lii moo fi ne lii lañ fi am ku ko deful da ngay kii ay wax yoo xamante ne ma anzala allahu biha min sultaan yàlla wàccewu ci benn lay ay nag ku muus daal mooy ku góorgóorlu ba xam li yàlla bañ nga moytu di bokkaale bokkaale kese sàmba la demba la yero la bokkaale bokkaale rek ku baax ak am na xam-xam laag waliyu laag muqaddam laag suul nañ ko suuluñu ko mani bokkaale bokkaale gesal nee na ñooñu defoon loolu bi ñu deewee génération yu ñëwaat seen ginnaaw dañoo jël xërëm yooyu gaa yi sampoon tabax ko statue yooyu def ko ay yàlla di ci di ko tàgg bu ñuy tukki di ci ñaan seeni aajo di ko raay di ko fóon di ko màggal di ko tàggu aajo bu ñu am dem ci moom te loolu xam ngeen yàlla moo ko moom mu ne ibnul qayim rahimahullah mu ne qaala gayru wahidin min as-salaf kenn ci nit ñu baax ñi wala ay nit ci nit ñu baax ñi ñoom ñëpp wax nañ ne lamma ba génération bi defoon affaire bi faatoo akafu ala quburi dañoo dem bóof ca seeni armeel bóof lan mooy bóof xam ngeen bóof bóof mooy lan mooy ginaar ni muy def nen daal di toog ci kaw ne nii nit ñu baax ñi ba ñu deewee nit ñi dañoo ñëw bóof ci seeni bàmmeel toog kenn defatul dara toog wóor bàmmeel yi ndax jàpp ne ñii ëllëg ñuy dugalaate aljanna summa sawwaru après ñu daal di foto nag def ay jëmm tamasilahum seeni instati kenn ku nekk ñu boo benn artiste benn technicien boo xam ne dana jël ciment bi walla ban bi walla plâtre bi fexe ba génne la ba mu nekk exact normal te lii tey booy xool àdduna bi ba ci indo yi ba ci Bouddha ba ci Jésus ba ci jullit yi da ngay gis tey Jésus ñaata statue lañ ko defal moom ci boppam xoola Mariama ak niñ léegi lañ ko crucifié ñaar am na yoo xam ne sax ay bronze lañ ko def ay bronze yey xaalis yenn saa nga gis ku ci takk lan benn or wala benn nangam loolu nag musiba naarullahi la ma ne bu ngeen jàngee tuuti wala ngeen fàttaliku est-ce que Aboubacar sa Aboubacar takkoon na fa ko yeneen bi hmm? bëggoon na ko wala bëggoon na ko lu tax jëlul jëmm yonent bi takk loolu sax dafa sori Abubakar dafa sori Alaaji Maalik est takkoon na jëmm yonent bi lu tax Sëriñ Tuubaa ndax gis ngeen photo bu mu takk photo yonent bi lu tax takk ko bëgg ko waaw ñoom seen bopp sax dàkku yaa takk photo ñoom seen bopp tàkku ñu woon photo parce que ñoom xamoon nañ amoon nañ tawhiid xamoon na ne nit du takk photo nit du takk photo nit du def esthétique këram rawatina nag esthétique nit ku baax saa yoo ko fa defee ay guddee ngi ñëw ay bëccëg ngi ñëw ci bokkaale lay ba pare malaaka yërmande du dugg ci kër gi esthétique nag ak xaj malaaka yërmande du fi wàcc nee na su ma taale alayhimul ñu dem ba àdduna yàgg génération bi defoon loolu daal di faatu fa abaduhum ñu jaamu leen léeg nga dégg benn waaye ñu ne wallahi ñun jaamuwuñ leen jaamu lan mooy jaamu jaamu leen léegi nag ibaada duwaa ñaan ci ibaada la moom léegi ñu ne la xadis bi ak duwaa wul ibaada léegi nga ñëw di ñaan yow nga tim ci bàmmeel bi gaa yi affaire yi dafa dëgg sëñ bi affaire yi ñëpp yëpp dëgg temps yi yow rek dem yow rek loolu bàkkaale la sooy ñaan da ngay ñaan yàlla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta yooyu ba mu toogee Abdullah ibnu Abbas xale bi ca mbaamam ndeysaan da ko ne booy ñaan ñaanal yàlla kuy ñaan yàlla ngay ñaan kuy ñaan da ngay jublu nga ñaan yàlla waaye ngay bokkaale di ñaan nit rawatina li nga koy ñaan yow di ko ñaan wërsëg di ko ñaan dund loolu musiba la mbokk yi bokkaale yàlla daf ñu koy tere te tey dafa bëri ci xeet bi du hasard yàlla wàcce ci ñun Qur'an li ñu jox misaal ci yonent yi ni ñu xeexe woon pour tawxid sant nuux alayhi salaam ñaataan la woote xamsiina aman illa alfu sanatin illa xamsiina aman junni at yu juróom yàlla moo ñuy nettali ne fa ma amana lahu illa qalil lu tax mooy bokkaale baaxul lu tuuti lu tuuti moo ko doom lu tax parce que bokkaale nit ñi seen xol yi dañoo xomaat daf ñoo fàtte yàlla te nu système bu nekk def na ko woote na guddi woote bëccëg woote lu feeñ woote lu nëbb emploi du temps barnaamij istimaal awqaat li mu tëraloon pour liggéeyal yàlla mooy daxatu kaw mi lay la woote naa guddi woote bëccëg su may ni aalantu lahum wa asrartu lahum israara woote naa lu feeñ woote lu nëbb lu fi des ku woote guddi bëccëg woote lu nëbb woote lu feeñ yàlla sax moo ñuy nettali de junni at yu manqué juróom fukk waa ji di woote mais mënul am ñu ko gëm te sax egg na ci woote boo xam ne buy woote jaalu asaabiahum fi azanihim jël seeni baaraam dugal seeni noon yemuñ ci loolu sax ñu dénkante ko ku nekk booy faatu da ngay woo sa famille ne ko ñun lii lañ xam te loolu moom Sénégal te ku yóbbu ay doomam benn barab ne fii laa am ñii laa am ñenn ñu dul lii fii rek dundu dem dee dee am yàlla loolu boo kaale la baaxul nan am nan am yàlla kuy am amal yàlla nan am yàlla wallaay ku am yàlla ñàkkoo dara waaye ku amul yàlla amoo dara loo mënta gis ne moom nga am amoo dara yàlla rek loolu yàlla neen la yàlla rek muy dëkk yàlla mu jëkk mu mujj jullit na gëmloo njabootam yàlla mais boo leen gëmloo ay xërëm boo leen gëmloo ay bokkaalekat ëllëg yowmal xiyaam di nga am jafe-jafe te ñooñu noonu lañ defoon ñu dénkante laa tazarunna aalihatakum bu leen bàyyi seen gis nga dañoo dem sax ba léegi ñooñu ay yàlla loolu la ñu wax loolu la ñu wax wa qaalu laa tazarunna bu leen bàyyi seen yàlla yi te gis nga ni mu bëri nekkatu sax léegi benn mais seen la ñu wax aalihatakum jàmbu la ñu commencé fi leen lim lu ko waral mooy ña ko indi woon ña defoon loolu yaakaaroon lu baax ñooñu dee nañu ñi fi nekk jàpp nañ ne seen papa yi li leen doon jaamu chaque jour dëkk boo dem loolu ngay dégg li la fi mag ñi bàyyi woon ñun li fi mag ñi bàyyi woon ci lañuy ñuy ne man sax gis naa soxna soo xam ne ndeysaan kër gi ko jëkkëram bàyyi woon kër gi danoon am ndox kër gi day taa ndox xale yi am alal trop nekkoon nañu génn fii mu ne leen déedéet fii la ma seen bàyyi bàyyi woon fii laay dee wala loolu fii la ma seen bàyyi bàyyi woon fii laa ñaan yàlla dee ba ndox mi ñëw mooy mu génne gis na ñu xam ne mënatuñ ci dara ñu ñëw toj kër gi ñuy doog a génn est loolu lay la est-ce que lu fi mag ñi bàyyi rek ñu continuer bu dee lu baax li fi mag ñu bàyyi kay nañ ko continuer mais bu dee lu baax bu dee tawxiid te ñooñu ñuy wax ne loolu lañ fi bàyyi genn wàll gi ci ñoom ñëpp dañoo bind bàyyi fi ay bind yoo xam ne genn wàll ngi bindu tawxiid la nañu jaamu yàlla bu ñu bokkaale yàlla bokkaale yàlla da yóbbu ñu safara nañu xam ne yàlla rek la amul keneen amul leneen su ko defee mbokk jullit yi yonent yàlla nu lii la daj di woote junni at yu manqué juróom fukk ibudullaha ma lakum min ilahin gayru jaamu leen yàlla bu leen dendale yàlla ak kenn wala leen parce que ibaada bi ngay dégg du leen lu dul tawxid fa maanaa yaabuduuni mooy ay yuwahiduuni maanaa nañ ma jaamu mooy nañ ma li yàlla moom bu ko kenn bu ci kenn fell lenn di ko jox nit moo tax jaamu yàlla moo ko moom kenn bokk ci waroo ci dindil kenn dara te saa bu bees bi bi may ñëw sànq di julli si tàkk euh, julli si fi tàkk sànq mu fa dégg ci rajo bi wax ñu tey waar bu gaaw waa ji ne boo jébbalu ci sa li yàlla moo moom li yonent bi moo moom li sa ndey ak sa baay moom lépp ngay boole def sëñ bi loolu ban taw yi la yàlla li moom ku ko jël jox ko nit musiba la yàlla yonent bi sax li moom boo ko joxee keneen al alal nga nit ka waxuma laak nag li sa ndey ak sa baay moom ataa ndey ak baay sa nit moom waroo waroo waroo waroo ko jaawale di ko jox keneen borom xam-xam bi nee na kenn warul jaawale bulletin de naissance ak bulletin de salaire déglu leen wax bi de bulletin de naissance ak bulletin de salaire kenn warul ko jaawale nan la ko nit di jaawale bulletin de naissance moom la sa baay moom bulletin de salaire moom la sëriñ bi moom sëriñ bi kañ la la xam bi nga am salaire benn waaye dafa jàpp loxo papaam ne ko papa mu ne am ne kañ ziare yi sëñ bi mu ne ko sëñ bi ma war a fekk si bulletin de naissance moo jiitu bulletin de salaire dégg leen wax bi de voilà kooku moo war a ziar si lu mu réeré moom moo war a ziar si bulletin de naissance moo jiitu bulletin de salaire kii bi nga amee salaire la xam man ba ngay juddu laa la xam du benn wa qadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyyaahu bil waalidayni ihsaanan yàlla nee man ginnaaw ba ma wooyee ku ci tegu sa neeg sa bi yàlla wooyee ndeeg baay moo ci tegu amul keneen yunus nee na yow ceer na maa bu ne yu may bàmma min dunki yii di du may alquran min jiilim alquran amit tam bi min dunki yi di mu ne na la sa ndey gënal sa sa sëriñ gënal sa ndey ak sa amul sa alquran yàlla dafa ne man ginnaaw man yàlla ba ma paasee rek kan la ci teg ndéeg baay kenn mun leen a wut kenn mun leen a wut ridallah fi ridal waliday wa suxtillah fi suxtil waliday kontante yàlla mi ngi ci kontante ñaari waajur léegi nag xoolal tey suñu jamono da ngay gis bàyyi ndeyam bàyyi baayam ñuy fanaan ci ay néegu ñax duñu lekk duñu naan muy gàddu ay xarak di gàddu ay million di gàddu ay ceeb di gàddu suukar di gàddu lu ne di wuti ku mu koy jox te mu romb ku ko aajowoo romb fi ndeyam ak ñu yey ci trop soxla ko trop ñu leen ko jox wala mu feel ci tuuti jox leen genn wàll gi mu gàddu yóbbu loolu moo tax dëkk bi mel nii kon jaam yàlla yi foog ñu delloo leen ci yàlla ñu xamal leen yàlla subhaanahu wa taala dafa rëddu yoon wàcce téere yónni yonent yoon bi mooy siraatal mustaqim téere bi mooy alquran yonent bi mooy muhammad lu mbir xumb xumb xumb xumb nit ñi di fàqa daw di ci dem li yàlla wax rek mooy dëgg bu leen yaakaar ne bëri mbooloo mooy dëgg mbooloo mu bëri yàpp bu bëri ceeb bu bëri diwlin bu bëri baas yu xumb yuuxu yu bëri loolu intéressé wul yàlla yàlla li ko mooy dëgg est-ce que ci dëgg nga nekk loolu bu dee dëgg la alhamdulilah ci yàlla lu baax la loolu bu dee dëgg ci yàlla caaxaan la bu fa dem ci caaxaan nga dem su ko defee taw ma quoi daa loo sànq euh, si ma ñu bàyyi lañ bindoon quoi mais gars yi bari nañ bind nañ ko dégg nañ duñ daanaka duñ ko wane quoi. deuxièmement li nga tamit yàpp ak foo dem doo fa lekk loolu lekk wóolu maanaam ku benn waay wax topp noonu ko trente ay mbir la yoo ne daal nañ góorgóorlu nañ góorgóorlu ba nga xam ne suñu diine dañ koy jël ci alquran ak sunna ñu teg ko fu leer parce que jaamu yàlla ñuy def jaamu yàlla moo tax yàlla bind ñu wa maa xalaqtul jinna wal illa liya'budun yàlla indiwuñu pour foofu yàlla indiwuñu pour caaxaan afa xasibtum annamaa xalaqnaakum abasan wa annakum ilaynaa laa turja'uun su ngeen gisee nag euh, kitaabu tawxiid nekk téere boo xam ne siiwul sax wala duñ ko bëri luñ koy waxtaane wala duñ ko bëri luñ koy jàngale mooy lii moo ci nekk te lii du lu sedd lii du du lañ koy waxtaane lii du fépp lañ koy wax bu ñëpp a ko ñemee wax du ñëpp ko ñemee jàngale parce que dafa yomb te nag loolu mooy diine ji nag benn borom xam day wax ne tawhid opération la foog nga nangu ñu opéral génne li nekk sa xol bi xam ngeen opération dañuy xotti foog nga nangu ñu xotti dënd bi génn xol bi xotti ko génne ñuul ñuul yi tilim tilim yi bokkaale raxas ko ba set daal di ñawaat xol bi dugal ko ci biir ñawaat dënd bi loolu du lu yomb walla loolu du lu sedd suñu nanguwul lool nag du ñu am tawxiid foog ñu nangu kennal yàlla kese gis nga ñee ba ñuy ba ñuy fas yéene bokkaale dañu ne laa tazarunna bu leen bàyyi ku bàyyiwul doo am tawxiid kon foog nga bàyyi bu nu bàyyiwul du nu am yi kon foog nu nangoo bàyyi lu nu gëm jàpp ko dafa ne mbir mi loolu la te du loolu beneen bi mooy diine teguwul ci xel diine texte la lu sa xel lu mu nangu rek imaam ali nee na diine bu doon xel bu ñuy masaa xof suuf la ñuy masaa mais bu ñuy masaa fa la ñuy masaa ci kaw diine du xel diine lu yàlla wax la ak yonent foog ñu nangu loolu foog ñu nangu koo xam ñu nangu koo jàng ñu nangu koo dund mais saa loolu dañuy nax suñu bopp kese kese dañuy dee nekk ay bokkaalekat te bokkaalekat bu dee lu dugg àjjana innahu man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu nnaar wa maa lizaalimiina yàlla nee na képp ku ma bokkaale boo dee dama la yóbbu safara bokkaale baaxul mbokk jullit yi nañ ko moytandiku nañ ko xam suñ ko xamee ñu daw ñu moytandiku ci suñu jaamu yàlla moytandiku suñuy wax moytandiku suñuy jëf moytandiku ci suñu lépp ndax benn laaj bu may laaj rek tey ku fi amoon soxna sa soxna boole laaj beneen góor looy yëpp nga wàcc léegi léegi ñëw julli si timis julli gée nga dem ñu war laa daajal sa reer nga ñëw fekk beneen waaye toog fi nga war a toog di lekk sa reer nga wax soxna si ne la kii moo aye tey ah dangay meram ah? jaas di nga jël jaas keneen yi ne da ngay mer jël jaas yi keneen yaakaar naa bu fekkoon ne denc nga lu gën a kawe jaas yi denc nga ci biir kër gi lu gën a kawee jaasi douze mois da nga koy génne waaw lu tax lu tax nga mer di jëli loolu lu xew ah ah mais soxna si moom moo ko di bindoo ko di waaleykum salaam confirmé li ngay wax noonu waaw dama déglu temps ci wala wala fajiri benn animateur bu ñaar ndoy baax waaw ko ne ko may. waaw nee na benn fajaru altine mu xëy yóbbu ay bagaasam fàtte ay pièces am ci biir kër waaw nee na bi mu demee nemmeeku te fàtte na pièces am ci biir kër gi. mu wàññeeku jël soit ci kër gi jël ay pièces am. Mm. fekk bàyyi mu bàyyi juróom bu góor ak jabaram ci biir néegam. dégg nga loolu. nee na bi mu jiyee bu génn yëpp ci jaasi dafa dëkk loxo bàyyi. te bàyyam la. te bàyyam mais dafa dagg loxo bàyyi. mais dafa dagg loxo. léegi te bàyyam la kon kooku bu doon bàyyam mu muy def pare mu yor lu ëpp jaas maanaam mooy dëggal na yàlla ko bokkaale léegi yow sa soxla li nga moom la jox keneen rek nga def ko loolu même waxu sax même sa doom bu ndaw tey boo génnoon léegi ne sa doom bi dama ne bitig bi jëndal ma dara mu dem ba ci digg bi keneen détourné ko daal di koy yónni mu yàgg trop mu ñëw nga ne foo demoon mu ne diw moomu yónni woon noo def te xoolal dafa ne la diw moom yónni woon rek bàyyi sa yónni dem ci beneen yónni nga pes ko sa jabar def lii nga def daal waa léegi nag yow nga bëgg a jël li yàlla moom jox keneen ba pare nga yàlla du la def dara nag dara waaw dama koy def te asamaan dara dara lu yëngu waaw waaw waaw yàlla mooy lan ah kay yàlla du moroom yàlla boroom la yàlla du moroom du koy jox dañ ko koy defal parce que loolu la bëgg yonent bi saa salaam jàngal na xadis bi ne ko hal tadri maa xaqullah alal ibaad wa maa xaqul ibaad alallah est xam nga li yàlla moom ci jaam ñi ak jaam ñi lan lañ am ci yàlla lan la ko tontu li yàlla moom mooy ñu jaamu ko buñ ko dendalee kenn wala leen li nit ñi moom ci yàlla mooy ku bokkaalewul yàlla yàlla du la dugal safara yàlla du la mbugal léegi nag tey nit ñi dañuy jël yàlla moom ak li yonent bi moom ak li li waa ji wax rek nee boo xasee joxe sa bopp moom amatoo yàlla ku dul waa yàlla na yàlla musal ci loolu maanaam yëfu dof yooyu saxaaba yi defuñu ko woon ci bi keroog ba ñëwee di ñu ngi jébbulu ci yow dañu ko ne ñu ngi jébbulu ci yàlla ànd ak yow liggéeyal diine ji Suleymaan bi Balqiis di tuub waxul maa ngi jébbulu ci Suleymaan dafa ne aslamtu maa Suleymaan maa mooy lan maanaam yow Suleymaan maa ak yow dañuy ànd jébbalu jëm ci yàlla waaye nag ñëw jébbalu ma ci yow nit kenn du jébbalu ci moom ci yàlla ñuy jébbalu Ibrahima yàlla bi koy tàgg lan la yàlla wax is qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu li rabbil alamin gis ngeen kon yooyu yàllaa ko moom dafa war a leer ñu ràññee ko ñu xam ko ñuy jàngal ko suñuy njaboot yar leen ci ba ñu mën a xàmmee yàlla ak yaali li yàlla moom ak li keneen moom fi ñu war a teg yàlla ak fi ñu war a teg keneen anzilu naas manazilahum kon mbokk yi lii mooy darsu tey ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala defal ñu tawfiq asalaamu aleykum